Thank you, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على النبي سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم مبكي جليتي مبكي طالبي غنا بون لي نيو باخا باخ آه، دي لين زياره نيغي فيغا خامس مو مو نيك ديوانو توبا كول وايي تامن بوكنا في لاني في عمل موي اب زورنا قصيده بون كي عمله فيغا خامس مو نيك ديوانو كول تاي جي نك بوكنا تي نيغا خامس نيو نيك زي ار اف تي في سيتو وون نيو لين تي نيغا خامس دين اندي ليب لوغا خامس لو في مون دي بايي كولا غين دوكو مون ام فيغا خامس مو نيك زي ار اف تي في نيغ فيغ نك تي Nek wa ahlu salam alaykum waa sëñ bi ñong leen ni nuyu lay delo ziaru bu baax baax di la ñaanal jàpp diko saku wat yow di nuyu wa sëñ bi fàttali bi sëriñ Jibi Gisee sëriñ Jibi Gisee euh, kon tay ji ñong fi nga xam nek wa ahlu cafe ka nga xam moko moo nek Jibi Gisee sëñ Jibi nan ngeen amale li nga xam mo nek nekk wàccaayu gi ngeen nek ci ku nek xamna ni journée xasida bi dana xawa jafé jafe waye tam affaire dana xawa bari lool mbañ mbaj ji ak ñi nga xam ño nek xalé ndaw yi ak ñi nga xam ño nek mag ñi nan ngeen ko organiser ba cafe gi nek lu yaatu waye tam lepp lepp nek tawfiq waaw ginnaaw buñ ci santee Serigne Touba di ci njukkeel maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp murit ba ndax ñun moom wax dëgg yàlla nekkalul fi lu Serigne Touba ak maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp dañ ci amaat tawféex bu baax a baax a baax a baax a baax ca kaw bi ñu yëkkatee liggéey bi jox ñu ko ñu war a ne ci wàllum kafe gi di ci liggéey kon dañ ci sant bu baax a baax ndax liggéeyum café moom am nañ yaakaar ne képp ku koy def tout tànk yeeg mag ñi ñëpp den fi teew waaye yaay am xolu bu muñ ta xamni ni lépp lu ko waral moy jëmmi sëriñ bi rek moko waral kon faaw ñu ci ak muñ ak tek ak tay ak sëriñ bi liggéey ko ci na mu waree jox ko jaamu yalla nga xam ci ño tax ñi défar café gi ñu delluwaat da ci santat wa Touba Koul gep gep gep gep gep ndax li ñun dañ ci santat suñ am satu bu baax baax sant ko ci sant bu baaxa baax ndax bi mu fi indi ni taw la ci ñun taw la ci ñun dañ ci santat bu baax di sant ñi nga xam ñom la andal ci walum café gi di ñaan yalla suñu borom ay lii moom wax dëgg yàlla ñun suñu xol dañ cee sedd lool ndax tax na amuñu leen loo xam si waroon ko cee mën a wax lu di ci sant Serigne Touba maam Cheikh Afar daf li nga xam si moo nekk wàllum café ah, na dëgg ah, nekk ah, moom moo ngi baax mu mel ni ki noonu daa nekk booy xool def ngeen finance bari li ngeen finance ndax takku na wala déet waaw wax dëgg yàlla buñ la waxee dëgg rek liñ ci financé lépp ci xaalis moom daanaka ni amul ablim, lim ndax liggéey Serigne Touba amul ablim, lim dañuy def rek ba fu mu rek ñu xam ne la yem waaw ndax ah, liggéeyu mbolo moo demee noonu soo ko bëgg wutal ab lim rek da ngay daal am noo tooge liggéey moom yàlla suñu borom dogal na ni ko ab lim dañuy def rek ba fu mu ndax am na ñoo xam ne si nii bëgg a barkeelu dañuy indi seen addiya def ci kon boo bëgg wutal ab rek day daal di xaw num dal liggéey waaw moom dal li ci sëriñ bëgg ci mom la aju yalla ci tassante ko mom féexi mom borom Touba dal tawakkala ñu fekk la tay ji nga yor li nga xam si moo nekk laxasaay dogissement bo nga xamni bu taru la bu moxtaar ko gis sa xelam ci ki nga xamni mo nek nekk baabul mam Cheikh ibrahim Fall euh, dogissement yi nan ngeen ko daldi euh, waxtane ba tënku ci nga xamni ngeen di dogissement yu mel ni defar yeen nga xamni si yéen ci waa ahlu café bi waaw dogissement yi manam dañ ko liggey ci liggey bo xamni ci ni euh wa keur soxna fat Jaxate mm-hmm. ñi liggeyal euh, do ngay Serigne saliw ci xel kom boo leen gisee ñoom ñoo nekk nii mooy couleur gi ngay seen nii ñoom lii mooy seen liggéey liggéey la boo xam ni Serigne Saliou rek moo ñu ñor képp moom la ñuy liggéeyal fépp fu ñu woo ci liggéey Serigne Touba maam Serafal ñu dem wuy ji fa. kon lu ñu def lu man di leen sant leen gërëm bu baax a baax ñoom ñee ndax biñ ñu ko waxee danoo bàyyi seen lépp ñëw fekk suñu ñu ànd ak ñoom liggéey bi kon loolu tawféex la. lii daal mu ngi nii daal moom liggéeyam waa kër Soxna Faat Soxna Faat Jaxate la liggéey euh, liggéeyam Serigne Touba daal kon santaat nañ ci bu baax a baax deel sant yow mi nga xam ne si nii yaa ñëw taxaw fii nii dina introsé ñu lay wax kon ñu ngi ñaan ci darajay Serigne Touba barkeb maam Cheikh Rane fallam yalla sun borom defal leen tawfiq te defal ko wa Touba Koul gépp darajay mam Cheikh Rane Fall Lam ak ah, tabarkàlla kon naka non rek lañ ko gisse ñom ñi nga xamne ñom ñoo fete won ci wa ahlu cafe bi ñu yëkëti kaddu yi nga xamne kaddu yu am solo la ci li nga xamne ñoo nek wa Touba Koul gi yëpp yaakaar deg ngeen kaddu yi nga xamne yëkëti yëkkati na ko mu melni ni yi ñu fekk ñu sol ñong ngi ko jël ceslaay fi nga xamne mo nek nekk Soxna kon da naka non rek lañ ko amé sa su nek fi nga xamne mo nek zr TV moy fi nga xamne si moo indi su nek li ngeen di soxla fi nga xamne mo nek Toubacoul nag fi lañ ñëwoon tey jii xam naa ko nañ ñëw suñu benn élément wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu